sëriñ daaro hasan njaay sëriñ daaro hasan njaay mi ngi feeñ jamono ci atum 1858 ci dëkk bu ñuy wax njare sayer njare sayer nag mi ngi ci région de Louga ci wetu dëkk bu mag bii nag di kokki ci dëkk boobu nag la sëriñ daaro hasan njaay feeñe jamono di doomu soxna faati ma kan ak sëriñ moor faati saar njaay moom sëriñ daaro hasan njaay nag bari nañu ñu bokkal waajur wu góor ñu mën cee ràññee sëriñ useynu njaay man cee ràññee ku ñuy wax sëriñ saaliwu njaay mën cee ràññee sëriñ sayer njaay sëriñ makodde njaay sëriñ abdoulaye njaay faa lamin sëriñ demba njaay sëriñ sëriñ Mouhamadan Ndiaye Samba Lawbe sëriñ Mbay Waajur Ndiaye sëriñ Ibrahima Ndiaye sëriñ Samba Ndiaye ak sëriñ Moor Ndiaye fukki doomu aadama ak benn nag la bokkal waajur wu góor ak moom muy fukk ak ñaar bi matee dal alxuraanul karim ci dëkk boobu mu feeñe jamono nag ci la dale alxuraanul karim di njare sayar ci ku ñuy wax sëriñ Ndiaye Aram Sambu ginnaaw sëriñ Ndiaye Aram Sambu sëriñ Daaru Asan Ndiaye itam nag yóbbuwaatoon nañ ko ci dëkk bu ñuy wax ngay saa yoro ko fa ku ñuy wax sëriñ Mayoro Gay ginnaaw ngay saa yoro ci sëriñ a kajoor ci loxoy Mamor Anta Sali Mbàkke ngir wéyal nag am njàngam li tax nag mu ñëwoon Mbàkke kajoor ci loxoy Mamor Anta Sali Mbàkke mooy bëgg gum bëggoon xam-xam te xam ne daara jooju itam nag daaray université la joo xam ne nii képp koo xam ne nii nag jaar nga fa danañ mën a naw nag sa xam-xam ginnaaw bu mu ñëwee Mbàkke kajoor nag doon fa jàng si nag xam-xam ci la xamanteeg nag ak doomu Mamor Anta Sali Mbàkke bii ñuy wax nag Sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim ba tax nag bi Sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim wootee yoon wi Sëriñ Daaru a digganteeg ku baax ki sëriñ Tuubaa xaadim rasuul nekkum murit itim ci ginnaaw ku baax ki sëriñ Tuubaa xaadim rasuul mu wéy nag nekkum murit nag ci ginnaaw ku baax ki sëriñ Tuubaa xaadim rasuul ba ni sëriñ Tuubaa seexul xaadim jógee Mbàkke Kajoor ñëw Mbàkke Bawal Mbàkke Bawal Daaru Salaam Daaru Salaam Tuubaa lépp itim nag sëriñ Daaru Asan Njaay mi ngi ci ginnaaw ku baax ki sëriñ Tuubaa xaadim rasuul nekk nak am murit nak ci ginnaw ku baax ki sëriñ Tuubaa xaadim rasuul ginnaaw bu mu jotee ngërëm nag la delluwaat nag ci dëkk boobu nag mu cosaanoo di njare sayar ñu boole ko faak soxna Mbaalo Njaay ba tax na njabootuk sëriñ Daaru Asan Njaay gu mag soxna soosu nag di soxna Faati Mbaalo Njaay nag moo leen meññi ñu ràññee ci sëriñ Abdullahi Njaay mi nekkoon taawub sëriñ Daaru Asan Njaay nag di njare sayar di di jàng ak di jàngale ba ni sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim nag demee ci géej gi ci atum 1895 bi sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim di dem ci géej gi nag ci atum 1895 sëriñ Daaru Asan Njaay mi ngi ci dëkk boobu nag di yar di jàngale ci dëkk boobu itam nag la wéy des ba ni sëriñ Tuubaa Touba Seexul Xadim nag jógee ci géej gi ci atum 1902 mu def nag comme nag ni ko mag ñëpp defee ñëw ziyaare si ko baax ki Sëriñ Touba Xaadim Rasuul laat nag ak muritam delluwaat itam nag ci dëkk boobu nag di njare sayar ab diir bu néew itam nag la fi ku baax ki Sëriñ Touba Xaadim Rasuul def ñu yóbbuwaat Seexul Xadim nag ci réew mi nag di gànnaar gànnaar googu nag Sëriñ Daaru Asan Njaay nag demoon na fa ziyaare ji ku baax ki Sëriñ Touba Xaadim Rasuul ci la ko Seexul Xadim nag doon xamal ne saa bu ma jógee nag ci réew mi nag di gànnaar danaa ñëw nag siyaare fa seexul xadim jógee nag ci réew moom nag di gànnaar laataa muy dem nag ca yéen jolof jaar na nag ci sëriñ daaru asan njaay nag seet si ko ci wax nag gu ko sëriñ tuubaa seexul xadim waxoon bi sëriñ daaru asan njaay demee nag ziyaare ji woon ko seexul xadim nag doon ko xamal ne saa bu ma jógee nag ci réew mii nag di gànnaar danaa ñëw nag ba ci yow nag seet si la bi seexul xadim jógee gànnaar nag ñëw na nag ci sëriñ daaru asan njaay ba fanaan fa nag seet si ko mu wéy nag des nag ci loxoy ku baax ki sëriñ tuubaa xaadim rasuul ba tax nag ku baax ki sëriñ tuubaa xaadim rasuul joxoon na ndigal sëriñ daaru asan njaay ngir nag mu sanc nag ay dëkki dëkk ca biir dëkk yi sëriñ daaru asan njaay sanc ñu man cee ràññee dëkk bu ñuy wax daaru salaam ñu gën ko ràññee ci daaru njaay ñaareelu dëkk nag bu sëriñ daaru asan njaay sanc mooy dëkk bu ñuy wax daarul xaddiim ñu gën koo xam ci daaru bondeel daaru xaddiim gi nag ñuy wax daaru bondeel dëkk bi mu jegee nag te tudd bondeel nag mooy li ko waral ñetteelu dëkk nag bu sëriñ daaru asan njaay gor di dëkkam bu mujj nag bu mujjee gor ci atum 1921 mooy dëkk bi mu tuddee nag Touba Njaay ñetti dëkk yii mu gor yépp itam nag ñi nag ci suuf si nag di njàmbur ci dëkk bii nag di Touba Njaay itam fi la sëriñ Daaru Asan Njaay nag génnee àdduna mu wéy nag des nag ci dëkk yii mu gor boole koog nag ay daaray daara itam nag yu mu gor ca daara gor itam nag ñu mën cee ràññee daaray tawru ak daaray jékki ak yeneen ak yeneen i daara nag yu mu gor ci daara yéeg dëkk yi nag la nekkoon nag di liggéey di yar di jàng ak di jàngale ba ni mu génnee àdduna nag ci atum 1924 yar ak jàng ak jàngale googu mu nekkoon ak pasteefu barki sëriñ Tuubaa xaadim rasul taxoon na nag moom sëriñ Daaru Asan Njaay mu defoon nag xasida jagleel ko nag ku baax ki sëriñ Tuubaa xaadim rasul ngir nag di ko ci sant ak itim nag di ko ci ñaan ci doyloo googu nag mu ko doyloo ngir rasulullaahi ak suñu boroom sëriñ Tuubaa nag defal ko tawféex nag bam dajeeg nag tawféex jooju nag ginnaaw xasida ak ziyaar ak xasida ak ndokkeel ak itim nag di dëggal la nag ab taalibe la nag ci ron ba tey nag ku baax ki sëriñ Tuubaa xaadim rasul xasida googu nag la sëriñ Daaru Asan Njaay bindoon nag jagleel ko ku baax ki sëriñ Tuubaa xaadim nag mi ngi tudd xadaa aali xamarun la xasida gi nag tudd ñu teewlu nag xasida gi sëriñ daaru asan njaay bindoon ngir jagleel ko nag ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasuul di ci wane nag ak muritoom ak topp gum topp nag ci ginnaaw ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasuul ba tey xadaa ali xamarun laylat du junnaati falxumdu duuna masirim min ruxunaati ariqta yaa shaahi min ajli tafakkuri man huwa tazakkuruhu aslul busaaraati wa hal radiita bi qaain xayra shaa'atihi wa in radiita fa anzim min alladi yaquudu saairuhu ila tariqi alnajaati walkaramaati huwa alladi kaana lil anaami marhamatan min rabbihim fi dunaahum walqiyaamaati zaaka almakiyu alladi baari'u faddalahu ala kasiir mimma haasu almaziyaati xaysun karimun taqiyun naasihun warihun nafun nafuhun mafatihun alquyubaati xawsun kafiilun mujiirun zaahidun sanadun kanzul masaakini mannaahu almaraamaati xawlun xalimun naqiyun naasihun qusamun himal araamili daffaahu raziyaati muniiru diini ilahi nnaasi raafihu qadimu xayril wara naafi dalalaati man zaarahu li hudan aw zaarahu li nadan aaba bima raama min xayri nashiaati man jaahu li ixtidaain aw adaaxa bihi baa bi xusrin wa qamhin wa xuqubaati lillahi qad zurtuhu laa xayrahu arabi is laysa zinatu hindin bi hawaajaati wa himmati zukru rabbin laa zarika lahu jalla lahu l araduuna kazamawaati li annahu jalla yuftiini lmunaa karaman wa yasturu l ayba fiya kulla saa taati ataytuka alyawma dayfan atluban rida rabbil baraya allazi yuxni lmaqamat raya ya siqati ridwanuhu abadan bi xayri suxti wa tawbiqin wa afat jazaka rabbuka ya sayxi wa ya sanadi xayran malasi wa hizzi kulla awqat jazaka rabbuka ya xaadi hawaija man yaqdu ilayka bi xayrin za zikayat jazaka rabbuka ma yaqbituka alfudala bijahizana yawma alxusumat jazaka rabbuka xayran hahuna wa qadan an ummati almustafa xayri albariyat سيدنا أحمد المحمود في أبد صلى عليه الذي يحتي بمنات صلى عليه صلاة لا مزيل لها بالآل والصحب من ينفي روحنا ginnaaw xasida googu mu bind nag jagleel ko ku baax ki Sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul bi Seexul Xaadim nag gisee xasida gi bindaatoon na itim nag ay bayit ngir jagleel ko nag Sëriñ Daaru Asan Njaay Seexul Xaadim nag ma ngi koy xamal nag ca bayit ya di ko wax na nag yàlla na la yalla fay yow Asan Njaay yàlla nga am itim nag ngeen gi fay ci darajaye ka nga xam ni nii nag sëtam ya Asan nag bokk na ca bi Sëriñ Tuubaa seexul xaddiim nag di tëj tontu bi mi ngi xamal sëriñ daaru asan njaay nag di ko dénk ragal yàlla gama la woon farlu itim nag gama la xame woon nang ci sax nag ba bu ci dara manqué ñu teewlu nag tontu bi sëriñ tubaa seexul xaddiim tontu woon sëriñ daaru asan njaay ci ginnaaw nag bu ko sëriñ daaru asan njaay nag bindee ak xasida ngir di ko ca tagg ak di ko ca way ñu teewlu tontu seexul xaddiim bi jazaaka rabbuka fi daarayni yaa xasanu xayran bi jaahi lazi min najlihi alxasanu xataa taxuusa lasi tarju wa taamuluhu mimman lahu qad badal kitmaan wal xalan faalam bi anni raadin مطلب أن جاءك الفوز من مولاك والمكن فلا تزل في التقى والرشد مجتهدا كي لا يلاقيك العصيان والفتن اللهم صل على سيدنا محمد na itam nag mu nekk nag ku dëggu nag ci ginnaaw ku baax ki Serigne Touba Rasuul mu wéy des itam nag ci suuf soos nag di njàmbur ba ni mu génnee àdduna ci atum 1924 laataa muy génn àdduna mag ñi mu séqaloon ku baax ki Serigne Touba Xaadim Rasuul ñu ci baree baree baree bari nekkoon nañ nag wóllëre Serigne Darou Assane Ndiaye ci biir wóllëre Serigne Darou Assane Ndiaye ñu man cee ràññee sëriñ Mbàkke Buso ku jaxasoo woon ak sëriñ Daaru Asan Njaay la ba tax na bi mu génnee àdduna moom sëriñ Daaru Asan Njaay ci atum 1924 sëriñ Omar Diop bu Mbàkke Bawal la Seexul Xaddim yónni di ko xamal ne na sëriñ Mbàkke Buso nag taxawu sëriñ Daaru Asan Njaay ku jaxasoo woon ak sëriñ Omar Diop la nag bu Mbàkke Bawal ba tax na mook sëriñ Omar Diop nag nekkoon nañu itam nag ay xarit xarit googu ñu nekkoon nag tax na itam nag ku baax ki sëriñ Tuubaa r Rasuul xamoon na ko sëriñ Daaru Asan Njaay itam xamoon na ko sëriñ Omar Diop Mbàkke na ko dundal loolu itam nag tax na sëriñ Omar Diop tudde na doom sëriñ Daaru Asan Njaay sëriñ Daaru Asan Njaay itam nag tudde na doom sëriñ Omar Diop bu Mbàkke Bawal maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baabul Muridiina ku jaxasoo woon ak Njaay la ba tax na ñoom ñaar ñoo bokk nag cosaanoo ca njaree ñoo bokk na ko muy ku ñuy wax soxna a Diop ba tax na itam nag am na ci njaboota loolu itam nag taxoon maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baabul Ikhwaul Mouridina daana sàmm kóllëre gi Serigne Darou Assane Ndiaye itam nag daana sàmm kóllëre gi maam Saliou Fall bokkoon itam nag ci jàmbaar yi toppoon ko baax ki Serigne Touba Xaadim Rasul nekk itam nag mbokkum Serigne Darou Assane Ndiaye ndax ñoom ñaar kat ñoo bokk njëre maam Saliou Fall moom itam tudde na ñetteelu xalifaam Serigne Darou Assane Ndiaye muy Serigne Assane Awa Jaxate Fall Serigne Modou Sow Ba bokkoon itam nag ci jàmbaar yi toppoon ko baax ki Serigne Touba Xaadim Rasul Serigne Darou ñi ko jàngal ci dëkk boobu nag di njare sayer ginnaaw bu mu ko jàngalee ba noppi noppi keroog ba fa sëriñ Modou Sow ba di bàyyi ko seede bu am solo itam nag la sëriñ daaru Assane Ndiaye def ci moom di ko xamal ne moo Modou Sow ba li nga jàng ci alxuraanul karim nag ak lii di xam-xam soo ci yemee kenn du la mën a jam nag ci dara ginnaaw ba mu fay jógee nag moom sëriñ Modou Sow ba la ko sëriñ daaru Assane Ndiaye nag jébbal ñetti doomu aadama nag ñu man caa ràññee ku ñu doon wax Modou Ndiaye Abdoulaye Ndiaye ak Cheikh Sayar Ndiaye ngir ñu jàppale nag sëriñ Modou Sow ba ci daara nag ju mu fas yéenee taxawal loola itam nag tax na itam nag biñ bokkee nekk itam nag ci ku baax ki sëriñ Touba Xaadim sëriñ Mor Sow ba daana ko sàmm daana ko jëfee suuf si ak njabootam dëkkee ci Touba di Daaru Njaay ginnaaw bu fi sëriñ Mbay Fallou Njaay ñëwee la Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke mi toogoon toogaayu Xaadim Rasuul waxoon nag sëriñ Masamba Kandi Buso ngir itam nag mu jébbal njabootuk sëriñ Daaru Asan Njaay suufa sëriñ Mor Sey Lampum Njàmbur ku jaxasoo woon nag sëriñ Daaru Asan Njaay la ba na soo delloo ci kàggug sëriñ Mor Sey Lampum Njàmbur daa fa fekk nag ay way yu sëriñ Daaru Asan bind ngir jagleel ko nag ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul ndax sax ak kóllëre gu ñaari jëmm yooyu amoon ci gàttal daal mën nañoo wax ne képp kum bokkaloon atub ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasul wala réew sëriñ daaru asan njaay nga woon ndax yéen ñaar yéen a bokkoon bëgg-bëgg mooy lu jëmale yoon wi kanam ba tax na mën nañoo wax ne képp kum bokkaloon atub ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasul wala réew sëriñ daaru asan njaay nga woon yar ak jàng jàngale boobu mu nekkoon nag tax na itam nag defar nañu baree baree bare bari ciw nekki na moom sëriñ daaru asan njaay ñu mën cee ràññee sëriñ ibra ngóone njaay sëriñ masamba ummi njaay sëriñ ma Masamba Kan mii waajuru sëriñ Moustapha Kan sëriñ Mapenda Njaay ci dëkk bu ñuy wax Wàqi sëriñ Modou Gueye Njobbu sëriñ Ma Gueye ci dëkk bu ñuy wax Ngéyeen sëriñ Mapenda Diop di waajuru sëriñ Sam Diop sëriñ Modou Gueye ci dëkk bu ñuy wax Ngédila sëriñ Ibrahima Mbeng sëriñ Abdou Gueye ci dëkk bu ñuy wax Tagar sëriñ Ma Diop Bey sëriñ Ma Bey sëriñ Mor Sall Gànna sëriñ Mayib Sala Njaay ci dëkk bu ñuy wax Wàqi sëriñ Modou Absa Njaay ba tey ci góor yàlla yi sëriñ Daaru Asan Njaay defar ñu Seck sëriñ Kala Sey sëriñ Abdou Mariama Ndiaye di waajuru sëriñ Assane Xorondom ak sëriñ Mbay waajur Ndiaye góor yàlla yii nag sëriñ Daaru Assane Ndiaye leen defar nag ba ñuy defaree mu wéy nag ànd nag di liggéey lu ñor nag mu it ku baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasuul ci fépp foo xam ne nii nag sëriñ Touba Xaadim Rasuul maa nga fa moo xam bi mu demee ci géej gi gànnaar ca yéen jolof njaaréem ak faneen ak faneen ak faneen ci loola itim nag la sax moom sëriñ Daaru Assane Ndiaye mu nekk itim nag ku sëriñ Touba Seexul Xaadim bëggoon moom sëriñ Daaru Assane Ndiaye ba tax na itim nag Seexul Xaadim amoon na ci moom kóolu sécurité loolu itam nag tax na mu bokk itam nag ci ñi mas a jiite seexul xaddiim julli ba tey ci tawféexi sëriñ daaru asan njaay seexul xaddiim itam nag na koo ganesi ci dëkku boppam nag di daaru njaay ba bokk na itam nag ci juróom-ñetti taalibéy seexul xaddiim nag yi njëkk nag jaayantee ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasuul ba tey ci tawféexi sëriñ daaru asan njaay bokk na itam nag ci murit yi nga xam ne nii ku tudd seen tur ñu xam ne taalibépp seexul xaddiim la yar ak jàng ak jàngale nag ci la sax ba nu mu génnee àdduna nag ci 1924 sëriñ daaru Assane Ndiaye nag laataa muy génn àdduna def na nag ndénkaane bu am solo jëmalee ko nag ci njabootam ak nag ñi nga xam ne nii nag ay soppeem lañ nag ak ay xaritam di leen xamal ne képp koo xam ne nii daal soo ma gisatul ba sama njaboot gi nañu tàggoo léegi nag laataa may génn àdduna ndax soo ma gisatul ba sama njaboot gi la nga doon woote nag ci ak xarit nekkul ci yow muy xamal njabootug boppam gi di leen xamal ne nag ni ngeen booloo te nasu nag ci benn buum ndax aw say wu takk ci benn buum kenn mënu koo damm nag nasoo ku leen jéemal nag mënal leen te boobaa nag ku leen yilif nag sañal leen tax na njaboot gi itam nag bàyyi nañ xel ndénkaaneb seen waajur woowu nag di sëriñ daaru asan njaay ba tax na itam nag ci atum 1998 bi sëriñ mbàkke awa njaay nag toogee xalifa moom sëriñ abdu xaadir njaay moom sëriñ daaru asan njaay waxtaan ak njabootu sëriñ daaru asan njaay gi ci booloo nag gu leen seen maam ja waxoon tax na ñu boole mbooleem màggali daaru njaay yi muy benn ndax nag nasoo nag gu fi seen maam bàyyi woon wala ndénkaane nag gu fi seen maam bàyyi Assane Ndiaye nag mi ngi génn àdduna ci feebar bu ko tëral ci dëkk bi nga xam ne ne nag moom la mujjee gor di Touba Ndiaye ci atum 1921 ca 1924 ba nag la génn àdduna ci feebar bu ko tëral ginnaaw bu mu génnee àdduna ci suuf soosu nag di njàmbur ci dëkk boobu mu mujjee gor ci atum 1921 di Touba Ndiaye booba nag mi ngi fekk ki mu yaakaar di Serigne Touba Cheikhoul Khadim nag mi ngi ci njaareem ci résidence surveillée ku ñuy wax Ndiaye Assa gallaay la njaboot gi nag yónni ngir mu dem njaareem nag xamal ku baax ki Serigne Touba Khadim Rasoul di ko xamal Assane Ndiaye génn na nag àdduna laataa Ndiaye Assa Galaay nag di jóge Touba Ndiaye di ñëw njaareem nag di ko yëgal si ko baax ki Serigne Touba Xaadim Rasuul Seexul Xaadim nag mi ngi doon xamal nag ñu nekk ci njaareem ku jóge ci fi bi Serigne Ndiaye Assa Galaay mii nag ñëwee ba yëgal ku baax ki Serigne Touba Xaadim Rasuul di ko xamal ne nag sa taalibe ba nag Serigne Daaru Assane Ndiaye nag génn na àdduna Seexul Xaadim nag mi ngi ko doon xamal ne malaaka ñëw na nag ba tàgguma waaye maa ngi lay xamal ne nag delluwaatal Touba Ndiaye te soo demee nag nga wax njaboot gi nañ ko waajal nag te indil ma ko Touba ci la Seexul Xadim nag yónnee jàmbaaram ji ñuy wax nag Serigne Omar Diop bu Mbàkke Bawal di ko xamal ne wóor la réew Serigne Darou Assane nga waaye demal Touba nga wax Serigne Mbàkke Bousso Mor Assane Ndiaye moom di ñëw nag na ko taxawu nag te jullee ko te jébbal ko boroomam nag te wetu guy ga te soo demee na nga wax Serigne Mbàkke Bousso di ko xamal ne suñ boroom gërëm a ngi noonu rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam a gërëm a ngi noonu ku ma gërëm a ngi noonu Serigne Mbàkke Bousso nag moo ko jullee ñu jébbal ko boroomam ci seede yooyu ñu leen wax nag ne moom la Serigne Touba Seexul Xaddim waxoon keroog ci taalibeem bii nag di sëriñ Daaru Asan Njaay loolu nag tax na soo delloo nag ci marché bii ko sëtu sëriñ Mouhamadan Jobbe bii ñuy wax sëriñ Basiiru Lo def na nag marché bu yaatoo yaatoo yaatu ci jàmbaari sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim boobu nag di sëriñ Daaru Asan Njaay di ñu wax nag aw melokaanam ak jikkoom ak nag ni mu doon doxale nag ci ëttub ko baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul sëriñ Daaru Asan Njaay jàmbaar nag gu mu nekkoon ak farlu itam nag gu farlu woon ci yoon wi ñu teewlu nag marché bi ko sëtu sëriñ Mouhamadan Jobbe bii nag defal di sëriñ yow géwalub daam basiiru loon daam jugal wayaat maam daarul xasan njaay murid yi jug leen déglu ma wax leen lu leen bëggal yéen ci sëñ xasan njaay su ngeen xerawloo na cell dégloo sëñ basiiru loo wayaat xasan njaay géwal bu dee way na way ku dul mooy te yaatu ay mayit ne sëñ xasan njaay kookaa di jàmbaar ju doon du jàmbaar jëfam rafetkaar moom sëñ xasan njaay moo ñàkki caaxaan te yàgg aw yoon mës la jëfum neen moom sëñ xasan njaay rafet na feeñin te sellu dindin jekk na wàccin moom sëñ xasan njaay ju doom ba ja mat na te ja rëy na moom sëñ xasan njaay maamam diine ngorog jom di lee cosaanam yem naa Assane Ndiaye dee su ko gàkkal dee su ko tuutal yàllaa ko waajal moom suñu Assane Ndiaye ba mu nee bëre jub ba nim defee mag mu jëf mu jub jàpp moom suñu Assane Ndiaye moo rafetoon xel te yaatu woon xol mos na ko coppal moom suñu Assane Ndiaye daddoon na dakku teeyoon na mukk di raam di sukk ko daamee Assane Ndiaye tabla bu teddoon bu xeer te man gan lewet na baaxoon moom suñu Assane Ndiaye du kaf du caaxaan du ree du ñeetaan safaandiku ngeen daw na Assane Ndiaye doyoon te doylu wayoon te farlu fu mu jullee ko selmal ak xëy di gontal bamba karaamal dal ya xasan njaay moo sell pas-pas te yaatu gis-gis doonul ku ñuy tas moom suñu Assane Ndiaye dëkkoog boroomam jubóoki mbokkam maneeki maasam moom suñu Assane Ndiaye appul te yeesul taxul te sooful yàllaa ko baaxal moom suñu Assane Ndiaye lislaam di toolam sunna di goppam bam baye waaram ya moom Assane sàmm na boppam sàmm njabootam moo ñàkk jam-jam tey suñu Assane Ndiaye deful lu buur sib fardooki mandu sunnaa ki waajib ñoo tool Assane Ndiaye toolam bayaa na te mbay ma set na jaajëf jo na fa suñu Assane Ndiaye tax boroomam béggoona léppam fab tey ngëneelam jox ca Assane Ndiaye kenn du ñeewaay yàllaa ko def waay tosu leen waaye ci suñu asan njaay kur nun gorgun guree ngoog lar bu taggoo ngoog murit bu dikkoo suñ ba asan njaay daana xëyal daam di daw ne ab jaam lu wax mu naa naam moom suñu asan njaay mës la fitiirlu mës la daniirlu fu mu toog di déglu ndigal asan njaay lu ba wax nag mu daal di fax jug nekk ca bam jak dellu asan njaay xëyee ki ngontam xel xalaatam jébbal na léppam daam moom asan njaay dafay suukar xaalis akuk jur yàgg na ko jóor daam moom asan du fa bi dirham di def ci boppam lu masa xëy am yóbbu asan xëy wéy njaaree ma jox koy bamba asan njaay bamba nangul ko léppam defar ko ba far gërëm ko fal ko asan njaay yaatu lenay ngor te tànn waa kër dégg na waaw góor askey asan njaay bamba gërëm na yoneen gërëm na yàlla gërëm na daru asan njaay quraan gërëm na lislaam gërëm na yooni gërëm na sëriñ asan njaay ma faf ko sargal te faf ko ndokkeel te faf ko ñaanal moom suñu asan jaaraama yaaram ba yàgg am jom bëggam ndam lu fes asan njaay dikkaak di xaalim di ngeen buur yow Assane Ndiaye ñaan naa borom bi leeral barab bi tey ful sa bi faw Assane Ndiaye na teraanga ak fidda ki barkeeg jàmm yaa mbik fa Assane Ndiaye bi jeexee mi tax ba lislaam taalam ba doon géem bér Assane ak baat ka yónneen ña ko toppoon xéewal te leen te dal salaatu rabbi alal muhibbi alihi wa sahbi ñoog sëñ Assane ay xalifaam nag nii la tëddee li ko dale ci atum ba ci atum sëriñ Fallou Ndiaye nag moo njëkk a nekk ab ba ci atum 1973 di sëriñ Mbay Falloo Njaay ñetteelu xalifa sëriñ Daaru Hasan Njaay ci atum 1973 la ba ci atum 1978 di sëriñ Ousmane Njaay ñeenteelu xalifa sëriñ Daaru Hasan Njaay ci atum la ba ci atum 1990 di sëriñ Mouhamadou Njaay Asan juróomeelu xalifa sëriñ Daaru Hasan atum 1990 la ba ci atum 1992 muy sëriñ Abdourahmane Njaay juróom benneelu xalifa sëriñ Daaru Hasan Njaay ci atum 1992 la ba ci atum 19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 Daaru Hassan Ndiaye moo ko wuutu nag ci atum 1998 ba ci 2014 juróom-ñeenteelu xalifa sëriñ Daaru Hassan Ndiaye di ñetteelu sët nag bu wuutu maamam mooy sëriñ Mbàkke Fat Silla Ndiaye ibnu sëriñ Mbay Faaloo Ndiaye ibnu sëriñ Daaru Hassan Ndiaye moo fi nekk nag ci 2014 nag ba nëgëni ñu koy ñaanal suñ borom guddal aw fanam nag te wéral ay cëram te yàggal ko nag ci toogaayu maamam boobu nag di sëriñ Daaru Hassan Ndiaye ak mbooleem nag ñu mu séqal sëriñ Daaru Hassan Ndiaye moom sëriñ Daaru Hassan Ndiaye nag am na bis nag buñ koy fàttaliku ci liñ tudde ak màggal li ko dalee nag ci atum 1924 ba ci atum 1998 lu ñu tudde nag ci màggal di ko darajale nag sëriñ daaru asan njaay nag amul woon ci atum 1994 nag la sëtam bii nag di sëriñ mbàkke awa njaay nag toog xalifa ci atum 1998 di atam mu mujj nag ci ak xilaafaam la waxtaan ak mbooleem nag ñi mu séqal sëriñ daaru asan di leen wax ne nag nañ wutal sëriñ daaru asan njaay nag ab bis nag buñ koy fàttaliku ci li ñu tudde nag ak màggal moom sëriñ mbàkke awa njaay moom ci at moom itim nag la màggalal sëriñ daaru moom itam nag la génn àdduna muy atum 1998 màggal gi itam nag bi ko sëriñ Mbàkke Awa Njaay taxawalee amul woon bis fixe nag màggal gi itam nag daanañ ko def nag ci mois de janvier jàpp mois de février bi ñaareelu sëtam bii nag toogee xalifa di sëriñ Cheikh Fat Silla Njaay la ko yóbbu nag ci ñaar fukki fan ci mois de janvier ngir nag ñu ciy fàttaliku maamam ja nag sëriñ Daaru Asan Njaay boobaak léegi itam nag at mu jot nag ci ñaar fukki fan yi ci mois de janvier nag la ñuy fàttaliku sëriñ Daaru Asan Njaay ci quartier bii itam nag màggalug bëccëg lay doon mbooleem njabootug sëriñ daaru asad njaay gi itam nag danañ ko teewee ngir fàttaliku kañu yaakaar di borom njare ñuy ñaan ca jàmbaari sëriñ tubaa seexul xadim ba ka seexul xadim doon wooye moor asan njaay yàlla nañu ko suñ borom fayal te yokk ay leeram nag te ñu ci barkeem li di jafe-jafe réew mi itam nag yàlla na ko suñ borom saafara ci darajay xasan njaay amin xasan njaay amin xasan njaay amin